mbokk yi gis ngeen comme ginnaaw bu ñu noppee ci ibulaay ba pare gis nañ ko mel ni jam production moom it aussi mu ñëw fii ci seen CNG bi doon régulariser ci combat am bi muy réglalisé nag bëggoon nañoo xam ban combat la ndax ginnaaw tiis bi nga xamante ne dal na ci réew mi yëpp ay doomu aadama tey ñàkk ci seeni bakkan vraiment ñuy masawu ñëpp rek jam euh, lan moo lay di woon tey ci CNG. jili maa ngi lay ziar. di la nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay. Hmm. di nuyu mbokk internet yi ñuy seetaan si jàmbaar news fépp waaye mën a nekk ci àdduna rek ñu ngi lay siyaar bu baax a baax di nuyu sa caméraman di nuyu équipe bu jàmbaar bi yëpp jàmbaar si jàmbaar production di nuyu sama papa ba bu baax. di nuyu per ba bu baax a baax a di ko ñaanal jàmm xew sutura ak njabootam yëpp di nuyu PDC Mansour Ba waaw comme ni nga ko waxee rek tey li ñu fi ndi mooy. combat ma Mandione ak Bébé Diène. combat boo xam ne taxaw na depuis presque avril. Mm-hmm. waaw avril la taxawoon. ñu tok batay diko di door régulariser mhm. waye nak euh, bo gisé ñu mën ko régulariser jamm am ci réew mi mhm. kon jamm joju non yalla na sax ta continuer mhm. ndax lulul jamm jamm ko gën fi muy jógee du fa doy waye fi mu jëm du fa jeex non fi muy du fa jeex waye fi mu jëm du fa doy jamm doyul fen kon nañ ñaan ci réew mi jamm ndax Sénégal nag dëkku teranga la ñëpp ñoo bokku nday ak bay ko fi gañ sa bop mbokku la ko fi jotek sa mbokku la kon nañ ñaan jàmm ndax jàmm ci la lépp xaj bu jàmm amul lii di def nii duñ ko def ndax fitna moo tax tey combat yi ñu génn semaine yi passé amut ñu annulé lépp am nañu ci doon victime muy promoteur yi muy mbër yi ci waroon na bëree te ñoom ñëpp ay ndaw lañ ci réew mi lañ dëkk di profité sax di mastaw promoteur yi nga xam ne doon nañ ci victime muy ku ci mel ni Fallou Ndiaye waroon na tëgg le 10 jàmbaar production waroon nañu tëgg la onze. Mm-hmm. Jax waroon na tëgg la quatre. Mm-hmm. ñoom ñëpp nga xam ne seen journée yàqu na ñu ngi leen di masaw bu baax a baax a baax. Mm-hmm. di leen di ñaanal. Ousseyn production la quatorze. ñoom ñëpp ñu ngi leen di masaw. xam nga nga xam ne li wàcc seen kaw métti na. di profité tamit di jaale képp koo xam ne. ñàkk nga sa bakkan ci fitna yi am nii. ñu ci yàqule tamit don ci victime ñëpp ñu ngi leen di masaw. waaw di ñaan daal lu mel nii yàlla bu amati ci réew mi ndax nag. ñun ñëpp ya hmm. ci réew mi lañ dëkk te am nañ droit am nañ sañ-sañ ñaan jàmm am nañ sañ-sañ tamit ñaan musiba yi mel ni yàlla bu ko yàlla waat ci réew mi incha allah. am na solo mais jam combat bi actuellement ma ñoon ak Bébé Diène ci ban date nga ko jàpp ak CNG bi lan lañ ci ban date ba nga ko jàpp dépassé nañ fa ban date la ñu war a bëree loolu nga war a laajte lu ñu régularisé ba pare le 13 août la ñu war a bëree fii incha allahu rabi hmm. ndax daaw nag ñoo tëjoon saison bi la 14 août ren bu ñu ñëwee tëjaat ko war a tëggaat le 13 août ah alhamdulilah. waaw yàlla nañ si yàlla yóbboog jàmm rek ñu dugg seeg bisimilahi rahmaani rahim genn seeg alhamdulilahi rabbil alamin jili ku ne mois d'août xiin taw xiinul taw sa journée bi bu tawee. xiin taw xiinul taw kaafatan daaw waxoon nga ko te tawut kon ren tamit ni ñu yàlla suturaale woon ba du taw tawutoon daaw noonu la ñu yàlla suturaale ba du taw. waaw waaw non boo ne ma xiin taw xiinul taw. mois d'août noonu la jili mois de août bis lay taw. Mm-hmm. waaw daaw yàlla defoon nañ ngeen ni mois de août 14 août day taw 15 août day taw tawut te ren tamit ci kattanu yàlla ya, incha allahu rabbi ñi nga xam ne ñu ngi bay di ji ñu ngi ñaan yàlla bu suur baa buy taw na taw ci tool yi borom tool yi fii arène nationale amul taw amul ji ay mbërë fii bëree yàlla bu fi yàlla wàccee ndox la kato la tërës est-ce que du mois d'août bi du ngeen ci jël ay mesures yoo xamante ne bu tawee au cas où ngeen mën ji li lu tax waxoo bu tawut lu tax yow si bu tawee rek ngay ngay insister parce que août ci moment taw. août yëpp du jour yëpp lay taw août lu mu août nawet la du jour yëpp lay taw digg nawet sax day am jour yoo xam ne du taw ndax bu doon taw tout le temps gars a bay. Hmm. waaw yow ñaanal rek bu mu taw wala buy taw na taw ci raison yi. Hmm. dëkk ñi xam ne ci àll bi dañuy bay. ba tey damay xuus ci taw bi ndax daaw am na ci ay journée yoo xamante ne da doon taw. Hmm. donte yow sa journée tawul mais am na yeneen jour yoo xam ne taw na sa journée mën na tombeek mu taw mën na tombeek mu bañ a taw. mais pour jël kaafatan kaafatan jili sama na yàlla bu mu tombeek mu taw képp bépp promoteur buy tëgg jàpp sa date ñu ngi ñaan yàlla bu mu ci taw waaw taw daal buy taw na taw ci raison yi ndox xéwal la na ko tawal borom tool ñu ko soxla ñoom ay ñiy bay soxla nañ suur boobu yàlla ji taw hmm. waaw ñun làmb la ñuy tëgg hmm. làmb suuru suuru làmb soxlawuñ si ndox wax dëgg yàlla hmm. li ñu soxla mooy naaj bi tàng mu sedd mbëri di bëree gars yi di tëgg journée boobu mën nañ ci xaar ku mel ne Reug Reug ak Bombardier ñëw def seen première phase. bien sûr loolu kay da ngay confirmer wala da ngay laajte ah, loolu combat la Reug Reug Bombardier mooy combat boo xam ne adduna bi yëpp moom la ñu xaar li ci war a xew dafa bari ñaari champion yi drapeau Sénégal dem di MMA ñoom ñaar rek la fi yàlla defee ñu booy leen bëree dóor ñoom ñaareem ñu décidé ne liñ nangou ci tuba bi lolou lañ bëgg indi fi confirmer ko ci lamb ji moy rëg-rëg door bombardier ba bombardier tibb suuf si yëkëti ne mënatuma wala bombardier door rëg-rëg ba rëg-rëg tibb suuf ne mënatuma lolou lu bess lay doon ci lamb waaw ta ñom ñaar aduna bi yëpp yakamti nañu xaar lolou ndax bëré liñ ci doon gis bo dooré mu daara arbitre soufflé Kat appi ñu ne jël la tek fess jeex na ñom ñaar lolou amu ci rëg-rëg day bëré ba bombardier fëgg ne mënatul abandonné wala rëg-rëg abandonné na mënatul incha allah kon nag làmb jooju àdduna bi dañ koy xaar incha allahu la treize nañ ci jàkkaarloo. jërëjëf maa ngi lay jaajëfal maa ngi lay jaajëfal bu baax di ñaan ci réew mi jàmm di wax ne dëkk bi. nit ñi temps yi liggéey amul. waaw te loo boo ko gisee yëpp gis nga ni réew mi demee la. ñëpp sedd. gars yi continuer seen activité élection yi ñu dugg seeg bisimilahi rahmaani rahim génn seeg alhamdulilahi rabil alamin ku ci nekk demal bindu ji ci ligg si yor sa carte bu wate jotee nga wateel ki nga bëgg mm-hmm. que le maire gagne ko am ndam réew mi la. Hmm. ndam li lu ñu naan ndam li génn réew mi élection yi tamit ndam li génn réew mi félicitation ci am daal képp ku ñu yàlla indi yàlla na doon li gën ci réew mi ndax loolu rek la ñu ñaan la gën na doon lu gën ñun doon li gën ci moom ndax jili bu la yàlla joxee lu gënul ci yow tamit dalay sonal hmm. kon képp ku fi yàlla di indi yàlla na doon li gën ci yow doon li gën ci réew mi ñun loolu la ñuy ñaan ndax nag réew mi ñoo ko bokk mënuñ hmm. ko séddoo Sénégal Sénégalu ñëpp la nañ ko nañ ko mayonnaise ku nekk capp jël wàllam macha allah yow jeune nga sax euh, te tey bu ñu gisee jamaïcain mu nekkoon euh, supporter nekk bokkoon ci fans club te ñu bari bari jaar fa nga dem tey ba tëgg bombardier ak rëg-rëg lan ngay wax jeune su sénégalais bi nga xamante ne tey jàpp nañ ni làmb luy yàq la wala mbir mu mel noonu wala coow li jot ni yu ci juddu yu ci baree baree bari ñu ngi ciy joxoñ baaraamu tuuma la non loolu man li ma ci wax mooy jili euh, nit ku nekk lépp loo nekk rek am ci ngëm-ngëm mm-hmm. d'accord man supporter laa waaye mosuma supporter mbër ba fàtt sama bopp bu liggéey jotee damay liggéey mosuma tëgg tamit làmb ji li benn drapeau société nationale bu état yor takk fi kenn mosuma sponsorisé yàgg naa ko wax xaw ma Prodac xaw ma Fonchip xaw ma DER man kenn lay sama état muy per ba waaw tëgg làmb drapeau takk sama làmb état mosuma jox dërëm waaw damay dajale di liggéey di góorgóorlu lu li may wax yàgg naa ko wax ji soo yoroon tey un milliard tëgg combat cent millions du ndam. Mm. ndax un milliard nga yor. Mm. lii ndam mooy jëncoo cinquante millions tëgg combat cent millions. loolu mooy ndam. Mm-hmm. boo ko réussir loolu mooy ndam foofu ngay nattee foofu la ñuy xamee jàmbaar. Mm-hmm. te kenn ku nekk waroo joppale jombale sa morom dara sa bopp dara. Mm-hmm. ku ne man ngaa doon ne. liggéey la rek gëm-gëm góor-góorlu am vision fii laa bëgg a dem fa laay dem. waaw ñu gën a ñaanal rek lépp lu ñu mébét ak li ñu fu ñu bëgg a yóbbu làmb yàlla kàttanal ñu bañ mën ko fa yóbbu. waaw loolu la ñuy ñaan message bi ngay lancer jeunesse bi comme yow xale nga te ñun ñëpp ñoo ñoo bokk ndey ñoo bokk baay yan message nga boo amoon loo leen di lan lay doon waaw li ma leen di dénk mooy ñi nga xam ñu ngi jàng ñi fonk seen jàng ñi nga xam ñu ngi jàng métier ñi fonk seen métier ñi nga ñu ngi liggéey ñi seen liggéey ndax la waaw ku amul métier jango, pour dimbale la day jafe waaw man li may wax rek mbëtt muy naajee xëy te du wàccoo yoon ku koy ñaanal gudd fan sa xam-xam soriwul ndimbal da ciy fekk loxo borom. ñu war a jàng nañ jàng fonk seen jàng xam ne njàng moo leen si la ñu war a jaar pour réussir ñuy jàng métier nañu fonk seen métier xam ne métier moom moo war a teral. ñuy liggéey nañu fonk seen liggéey xam ne liggéey moo leen teral loolu daal laay digal bépp ndaw. jërëjëf jërëjëf dina mastaw di mastaw seen waa kër yëpp. si dictateur gi leen seen papa sa papa teg. jaay wi fi mu nekkee kotu wi fi 2000 francs métti na. Hmm. te yow yaa ngi koy dund. say rakk di ko dund say mag di ko dund. waaw loolu nag wax dëgg yàlla dama leen di ñaanal. yàlla teggil leen ko. waaw ndax wifi. 15000 hmm. francs la xaw ma 22000. kër gi ku ne di participer di fay 2000 dafa metti léegi da nga may lancer l'appel pour ñu jàppale ma ma am. non non nga ko am waaye sa papa. xam nga ne yow leer na la boo waxee sa digganteeg yàlla ci micro lañ nekk. non du débat est-ce que boo yoroon wifi di nga ko installé ci kër gi. ndax sa mag bëgg na indi wifi mu ne ko wifi wifi bi di dugg ci kër gi kër gi benn wifi fa nekk te wifi am la te da ciy business. xalaat nga ni sa papa bu la yóbboo ci yoon par diffamation man lan laa ci woon mënu ma ci dara. yaa ngi nii loolu du diffamation li ma wax dëgg la seen waa kër yëpp mën nañu ko seede ay preuve laa yor yow sa digganteeg yàlla ndax du da ngay joxe 2000 chaque weer sa digganteeg yàlla ma teg preuve. non jërëjëf lii mbir bu amee mbir boo amee dañ ciy waxtaan ñu mun ko saafara waaw maa ngi lay jaajëfal yow tamit sa moto bi fu muy fanaan sa moto fu muy fanaan du tax duggul ci biir kër gi ah léegi affaire bi leer na ah, jërëjëf ñu ngi koy nuyu baax a baax a baax